Idriss Seck xam nga les alliances et les mésalliances en politique lu yoon la lu normal la Idriss Seck bés bu ko neexee mu ne Macky Sall maa àndoon ak yow àndatuma ak yow mais où est le problème c'est pas la catastrophe ba mu toogee ba xam ne war na ko mën a rejoindre parce que y avait un contexte particulier Covid machin mu ne non damay ñëw apporter ma contribution pour jàppale ñu ñu stabiliser réew mi mais il l'a fait tey bu jugee ne moment bi jot na parce que dafa war a mën a dem dagaan baatu sénégalais yi nekk candidat bu ko neexee mu ne génn naa lay xew nag seen biir parti ñoom la conserné bu fekkee ne Yankhoba Diattara dafa enfreindre les règlements intérieurs le règlement intérieur du parti peut-être wax na loo xam ne parti bi décidé wu ci bu boobaa parti bi mooy décidé nu sanction bañ koy teg ak sanction bu ko dul teg ça c'est des affaires internes donc li am solo daal mooy faut pas qu'on s'alarme Idrissa Seck am na droit génn génn boobu ça veut pas dire que c'est la catastrophe. am na droit génn parce que dafa bëgg a nekk candidat gis nañ Ablaye Wade mu def ko plusieurs fois dugg ci gouvernement Abdou Diouf bu élection jotee mu dem def.